salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi siyaaraat ñëpp di leen ndokkeel bu baax comme niñ ko baaxoo àndee rek tey ñu fas yéene ñëw ci yéen ak njëriñ la am solo muy lu yombal di gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay nelaw te loolu nag dana yokk jàmm bi pas-pas dana ko yokk xéewal mbokk yi ñaan gi mën nañ ko ànd ak ñu baamtu ko mu gën a leer muy allahuma inni asaluka bi nuuril anwaari allazi huwa aynuka laa gayraka an turiyani wajha nabiyika sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kama huwa indaka lii ngay wax téeméeri yoon balaa ngay tëdd insha allah ñu baamtu ko allahuma inni asaluka bi nuuril anwaari allazi huwa aynuka laa gayraka an turiyani wajha nabiyika sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kama huwa indaka cent fois inchaa allah rabbi ku koy faral di def rawatina guddi ajuma gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina la yomb lool jërë ngeen jëf